mooy ngeen xippi xool Abass Fall rakkale bi ngeen ko mën a jox day jaay réew te réewul 17 novembre 2024 yanu leen lépp sa député yi naka waa Barthélemy mi jël Abass Fall ngeen delloo ko mu nekk si ginnaaw Sonko de mu koy yónni ay wargaak ay naanaak ay soog lu Ousmane Sonko mënul defal boppam mu yónnee leen ko ñu lépp lañu xam boo wax jotee dinañu wax dama ne yëfu xum kungal bi dinañ si dellu dellusiwaat dawul sama yaram dawul sama yaram xase damaa ne de la création la ay affaire comédie victimisation pour faire oublier l'affaire de de de de Abbas mais surtout la grande victoire d'hier de la justice. bu bi bu bugaan bi xewu bugaan dit. ngeen bëggoon a yàq moo bu ngeen seetloo Quel saful quel saful ko yaramam dama né sénégalais yi 17 novembre 2024 bu len Ousmane Sonko ñu mu ànd sa sa sa bande de comédiens. et de victimes fausses victimes si kenn daw seen yaram bu leen leen faale Doudou à vous le micro.